bisimilah. ngi jëf mbokk yi internet yi bàyyi xel sans limite TV ñu leen di leen jaajëfal bu baax a baax ci saw bi safoo di ànd ak ñun suñu jataay tey nag dañ ci ànd ak suñuy naataango di 313 digital ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, cheikh bi ñu ngi lay sant di la gërëm ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la rek nga nuyoo suñu mbokk aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu santee yàlla ñu ngi julli si yonantu bi sallallahu taala alayhi wa di leen dalalaa seen kër mbokk seen xarit comme ni mu ko waxee di am mbégte ak kontante di jàkkaarloo askanu Sénégal ngir ñëw indil leen ay yenn leeral incha allahu taala mm-hmm. journaliste yi defoon ay révélation yu doy waar ci réew mi mm. euh, maanaam retour comme lan. maanaam lan nga ci jot ginnaaw bi nga defee ay révélation euh, yan yan retour nga ci jot ci kilifa yi ndax yaa ngi doon woote. Hmm. nga xam ne ñoo ne ci kaw mën a ñëw liggéey ak yow liggéey ak yow ndax jot nga ci ay retour. waaw alhamdulilah euh, comme ni nga ko waxee def nañ fan yee passé conférence de presse pour lan ñëw suñu mouvement bi di mouvement de la solution révélation yu bëri yu jot a def nag am na ay retour yu mu am. am na retour yu positif am na retour yu négatif ndax fii Sénégal la mais dañuy njëkkee si yu positif yi rek am na ay kilifa yu ñuy waxal ndax dañoo tàllal loxo askan Sénégal ndax nit kat soo bokkee ci ab dëkk bokk ci ab askan da nga war a bokk ci ñuy defar waaye waroo bokk ci ñuy yàq te ñun ñu taxaw fa yéene tànk pour bokk ci ñuy defar lañ bokk pas bokk ci ñi nga xamante ni dañuy yàq kon am na ñu ñuy waxal ñi nga xamante ni ay kilifa lañ duñ ci wax nag duñ joxagum kenn tourné kii ak kii la. dàq ñoo àndal liggéey pour kenn que ça soit ñu nekk si opposition bi am nañ fa ay xarit que ça ñu nekk si pouvoir bi ñu ngi ci waxat ñu bëri macha allah boobu daal mooy retour yi nga xamante ni retour yu positive la beneen retour bi nag mooy gone yi ñàkk teggin ni nga xamante ni Pastef lañ bokk te man heure bu nekk dama leen koy wax réew mi nii seen leader Sonko moomu réew mi nii ñun réew mi ci lañ bokk Sonko gënuñu yaay gënuñu papa njaay lañ sant macha allah bokk ci Sénégal bi di Sénégal njaay gis nga politique ma leen jox benn conseil rek su ngeen ko bëggee def ngeen am ci li ngeen ci bëgg dangeen ngeen koy teg ci xam-xam ak njub ak leer ndax man képp koo xamante ni da nga war a détourner objectif dëkk bii ñun de sa kaw danañ ci dal te ak koo mënta doon ak fépp foo mënta bokk daal loolu c'est bon nga ngeen xam ko. <laughs> Cheikh Sénégal bi lañ dëkk. gis nga toog fii di naxante Mollah Morgun fu mu bokk. Axane ah, ah, fan la bokk. Assane Diouf fan la bokk Assane Assane Diouf xorom fan la bokk. <laughs> déedéet Pastef lañ bokk nee nañ ay ñooy patriote Pastef lañ bokk ñoom foofu buñ buñ fa bokk sax ñoom foofu lañ askanale seen bopp mm-hmm. kon ñii am na ñoo xam non damaa jox exemple rek parce que bëri na ñoo xamee parce que ñu am xam-xamu politique nekkuñ fa amuñ projet amuñ xam-xam ñu waaw parce que benn révélation sax naa ko indi maanaam euh, journaliste yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal buñ nangu benn parti politique di leen jël di leen def seen poste journaliste yi yéen ay métier bu noble ngeen yor te journaliste mën nañoo wax ne taxawaayam ci ab société comme taxawaayu prophète la ndaxte koo xamante ni la dañ koy jox ay xibaar muy jugee ko fu fasantikoo da ko war a ñëw tas ko indi ko comme nu mu waree waaye bu fekkee ne dafa jël xibaar bi rek mu jël ko détourné ko dafay indi yeneen i ay problème <coughs> maanaam ñi ngeen journaliste yi am am seen fullaay bopp mhm. ba ngeen di jàng seeni métier du benn politicien du Macky sàll du Ousmane Sonko du Khalifa Sall du Karim Wade mhm. du man mi da ngeen am seen euh, bëgg-bëgg ne kat dañoo bëgg doon ay journaliste kon da ngeen koo war a teg ci yoon bu leen war a liggéey n'importe kii naan kii laa war a waxat wala kii laa war a far far nag yéen warul leen ku nekk mën naa far ba mu des journaliste ndax gis nañ Sénégal léegi dafa yàqu far bi dafa ëpp fu mel ni Walfu TV moom yàq nañ ko Walfadjri yàq nañ ko te Walf sax am na lu ma xam si ñoom parce que seen waa jooju yor directeur programme bi moom tudd Diop Moustapha Diop boo ko dégg naa directeur général moom Ousmane Sonko daf ko dig ne su nekkee président dana ko def ministre de la communication. keneen ki nga xamante nii mooy mooy mooy soxnaay euh, Cheikh Niass doomu si lemin mhm. soxnaam soosu tamit Ousmane Sonko am na lu nga ko dig du ma si wax dinaa ñëw. ki nga xamante ni mooy waa jooju noonu waa ji dëkk Touba. mooy sëriñ bu gàtt boobu rek. waaw. moom tamit dégg naa Ousmane Sonko am na lu mu ko dig ne ko dana ko fal mu nekk yenn ambassadeur yi si yenn dëkk arab yi nii. mais nag Cheikh bi. xam nga léegi non non non non non non non non non déedéet. wal fajir yi mooy lañ ko waxee la kàddu lan ñi amul kàddu. tey dafa gën a yàqu. wal fajir am na si benn dynamique bu mu nekkoon dynamique bu baax la. mais dinaa ne bugoo gis nañu dafa wàcc ligne bi de trop wallahi alazim lu wér laa la wax te loolu ñoom fu ñu ko teg du yoon Walf bu leen yàq li nga xamante ni Sidi Lamine defar na ko ci wàllu média ba liggéey ko ba tey jii nii da koo dig poste ministère ak am na keneen sax waaye weneen waa jooju noonu di toog si plateau yi tamit di layal Sonko Dame ministre de la éducation nationale lañ ko dig waaw seddale ñoom nag lii la politiciens yi nekkee jàpp na ñoom ñoo moom dëkk bi bu di ko séddoo te ñun xam nañu yu si bëri te dañu si génne yëpp révélation yi danañ ko indi ndax dëkk bi duñu nangoo ci ay politiciens di làqatu ci ay gannaaw ruq di séddoo dëkk bi ci pet Sénégal lam daan bi nga xamante ni ñoom dañoo jàpp ne kat diw mii nii su nekkee président lépp dana changé te wallahi al azim ak ni ñuy doxalee mbir yi nii képp ku fi doon président moo xam mi Ousmane Sonko moo xam mi Karim Wade mbir yi dara du fi changé ah, waa yow gars yi yow xamaguñ lan mooy dëgg-dëgg lan lan lan lan lan déedéet ñu topp eh. non non ni muy doxee nii ah. yëf yi tey yi nit ñi di def fexe démocratie amatul te dëkk bi def dëkk layig la nga ne kenn waratul gëm dara kenn waratul gëm yàlla kenn waratul jaamu yàlla ah, ah, kenn waratul ànd ak kenn Ousmane Sonko la ñëpp war a ranger ànd ci moom déedéet Sénégal moom ñu déedéet gars yi moom waa Pastef yi moom ñu si bëri ñoom yaakaar na ñoom rey nañ yàlla bu yàgg yàlla amut waaw du dara ay gone yu xamet yu fa nekk amuñ yar <laughs> saaga ay kilifa diine yaa ngi dégg jël ah. suñuy magi xalifa di leen saaga ku wax ñu ne doo wax man nag wax naa leen su ngeen ñu saaga day leen ñu saaga ñu ñii ñi bokk yéen ay génération ñu wax ak yéen ci xam-xam wax ak ci ngor ak teraanga waaye kilifa yi ngeen jël bugg a saaga ak noppiloo gi ngeen bëgg a noppiloo nit yi loolu du am senegal fii politicien bu ko bëgg a def xaw ku ngeen ñu noppiloo waaye man mi sama jëmm ji bokku ci. Hmm. Euh, hmm. génn wax waaw oh, am na am na ay wax yoo xamante ni wax yu fondé wut man du ma si tontu te duma ma si wax uh-huh. ndax lépp looy wax dafay fekk mu nekk loo xamante ni la leer la waaw déedéet dafal ndànk rek bokk ci njaboot gi rek tax na nekkul na lépp loo wax rek njaboot gi yëpp dañ cee ànd wala lépp loo wax rek dafa nekk dëgg uh-huh. lu gën a am solo te ñu xam ko mooy politicien boobu noonu di Abdourahmane Diouf